muqiru mooy zahiru baatin bi barama la ilaha la ilaha allah allah allah allah allah allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah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 إله إلا الله لا إله إلا الله صحت ما يأتي وما كان قبلنا بنور جلال الله نار بصيرتي وصحت خيب القيم حينا وحينه حسرت أنوارها الله جمال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 صرفت لذكره لا تنام منه الله خسرت ما لا إله إلا الله لا إله إلا الله غرق حرق غرق دقيان سباسي مجروم من سير بنيون السودان سيدي برهام برهام برهام baay baraama musu fee am gën a ko fi indi baraam joxoñ na la xadiri naan yabimin ka sidi baay baraama baay baraama tijaana barama nguur gu xalak groupe dax di yaanu fasix ba ca Ruum ministre ba ñëw na Sudan siri baramaay ba xaabil rey xaabil barama nangu woon nga naay la mool bu mag bi tàmm ngay maam sidi baramaay am ngeen sëriñ waaye xamul leen ko am na lu leen di lan moo di sidi baraam mooy kon barhaama barhaama barhaama barhaama baay baay baay baay nga xamoon ku la géttee ti ne ko yaa da njool eh. doon fa kër baay si maraamaay salaatul maxrib bi lañ noonu tey ba yeewu leen Seex Ibra moo da seen gan Sidi Barahamay ibbu na ko ndab lu tojul hmm. bënul te am na paay loo ca def mu ñëw kooko Ibra Faal yi moo xam mbooti Barahamay nga xamoon ku la gétteeti ne koy ada ku doon laajte faali mboy ngi sidi baraama xam-xam yi te nii gën a sell ci mbooti tijaan ba yàlla yàlla jox la ci ton nga baraama daqiyaanus teg na leen service di leen bëggoon lool wala nga ne barama sondong oya gaddayon ngurum dakiyans Ayu peet yàgg nay bany sidi barama dakiyanus teg na service dien bugol lol Ganya mer bagin génn gàddaay sidi baramaay gaaña mer nañ bagin génn gàddaay dab ca àllu rumba di jamu yàlla yónneen si baramaay fekk nañ fa jaamam buy sàmm ay xaram la woon jàmbane leen ana ngeen jëm siri baramaay gaaña ne ko dañoo bëgg a gàddaay te ñu gën a ruum te ñu faral di yàlla yónnem siri baramaay jàmbane leen xalam ba ma ànd ak yéen yéen ñi faral di yàlla ak siri baramaay gaaña tabbi nen ca kan ma ñoom juróom-ñaar jaamu yàlla ak yoneen Sëriñ Bara may garab ga nekkoon ca buntu ma xobam yaa nga naan garab ga gërëy ba daasaan Sëriñ Bara may gaaña nelaw nañ ñetti téeméeri ak ca biir ma mbiram yàlla doy na kéemaan Sëriñ Bara may gaaña ba ñu yeewoo ne suñu nelaw yi ndax nelaw la am waaye loolu yaa utontu leen ma Sidi Bara gaañu bu ñu yeewoo ne suñu nelaw yi ndax nelaw la yéen gaañu baar ñi tontu leen man si bara may barxaamaa leen doon doctoré waxtu suba ngoon boo ko lopitaalu malakoot si bara may barxaama barxaama barxaama barxaama bye bye bye bye bye bye bye bye baraama garab ga kunci ca buntu kan ma xobam yaa nga ruus garab ga nga max ba suuf si di baraama gaaña bañ ko boom topp biir manding ma ba ca marché ruum toog di jaam yàlla ya ak yonent di waay kacca na mag ne pare leen nag lu ñu jëndee réeru ngoon waaye bala ñoo dellu suñu makkaan sidi barama jaay na leen kilo tàndarma pese leen kilo warga dellu pese leen kilo suukar na sidi barama jaay na leen kilo tàndarma jaay leen keesu warga دلو بيسن لن كلم سوكر سي مراماي غادي ديال القالص بنا جوخ عبد الله نانكو بسم الله دم نانسي مراماي عبد الله دال دي خول قالص بنا دال دي لن وو نبي لخالص منو مكو دي براما عبد الله دال دي لن كلام جتير بنالو ريوما برمغور كتال دي لن وو دي براماي برهام baay baay baay baay baay baay baraama diggante kër jargan kër laayen fa lañ fekkoon noonu ba jànge daay bu jot moom ala ala ala ala ala sëriñ bi ñoo ngi lay ndamoom di la ndamoo di la di la dundal dundal dundal wéral daw mu bay dundal wéral dundal wéral dundal wéral filaani bay ñu lay ndamoo di la di la ndamoo daw mu bay ñu ngi saadatu

من جندلي لأصلنا المؤصل لا لا إلا لا لا لا قدر المقدار العظيم ما شاء الله جرجف يلا ويرن بعد